mbégte loolu daal Babacar. ah Moustapha looy wax. waaw xanaa am kontante bu baax a baax di félicité ñëng ci drapeau bi nga xam ne moom la tuddee sunu ministre bi madame la Assome Aminata Diatta di ministre du commerce ñu naan ko la lion de la banlieue. waaw di ñaanal yi aussi mbër yi yàlla bàyyi leen ci ba ci heure combat bi bu jotee et que le meilleur gagne ñu ngi leen di xamal nag ki ñuy bëreel nag moom ah gaynde la de bëgg na Assome Aminata Diatta voilà. non c'est Assom Aminata au lieu de Aminata Assom waaw on y tient voilà kooku mooy li la lion de la banlieue di jigéenu Macky Sall di sëru Macky Sall di leen xamal nag ñu ngi bëreel ndaanaan di ñaan yàlla combat bi buñ ci eggee yàlla defal leen jàmm que le meilleur gagne. ay ci looy wax ki lu nga wax bëri quoi maa ngi moom maa ngi moom góobu ku dàq bëre yàlla la yàlla may ndam loolu la laa koy wax maa ngi moom góobu doole ku dàq bëre yàlla la yàlla may ndam. amiin amiin amiin. amin amin si kàttanu yàlla billaay su bëree bu bëree ma daan ko su xeexee ma duma ko maa ko mën maa ko ëpp doole Lac de Guiers 2 xam na kan mooy dab daan ali Seye 2 mètres si kaw xam na kan mooy dab daan dama ko am may sens ku bëreeg mbay guy gi bëreeg soo sa maane bëreeg loo soo booy bi jommalu la bu taxawee ma dóor ko mu daanu yàlla xam ñi man daana ñi ma daan kii naanu leen ma daan ñàng daan gaaro gaar daan mbañu juf kere daan saa combe daan daam suge mbay baala gay ñi ma daan kii xaaj bi daanu leen ci la ñuy bëre dama ko xam moom ministre bi bu baax dama xam ministre bi xam bu baax lan lay liggéey ci Sénégal drapeau am ci kàttanu yàlla drapeau ndaanaan la ndaanaan moo koy jël di ko ñaanal jàmm xam nga di ko ñaanal gudd fan xam nga li muy liggéey Sénégal xam nga ñun ñëpp teg nañ seen bët xam nga yàlla ko yàlla na ko suñu borom dooleel président Macky Sall jàppale ko parce que jigéen bu am jom la incha allahu rabi dama koy daan looy wax waaw di leen gërëm di dellu leen gërëm euh, di kontaan ci teew bi ñu teewal ASOM Aminata Diatta fi ci signature de bi ñu tuddee ko làmb ji ASOM mooy bàjjen ci joolaa muy la bàjjen nationale du senegal parce que moom uuf njaboot gi ASOM moo uuf jeune Sénégal ASOM moo uuf jeune banlieue bi ASOM bëggul mu metti kenn banlieue boo fa demee jamono jii moo paree kenn xeexatul kenn kenn defatul lu bon financé na ñëpp bàyyiwul rappeur bàyyiwul femme yi bàyyiwul xale yu góor yi bàyyiwul kenn ñëpp a ngi liggéey inondation bi ba mu fa amee balaa président Macky Sall di jóg fu ne asom yóbbu na fa pompe yi nga xam ne dañoo inondé yu bëri fu ne yóbbu na fa pompe na ci yoo xam ne un million et quelque lay jar ñu di ko ko sant loolu di ñaan yàlla mu bàyyi ñoom ndax Casamance sax boo fa demee jamono yi nii Casamance amul amul. terre agricole la la mu ngi saawa. jaamu séeréer mu ngi saawa. joolaa jaamu séeréer. mu ngi noonu. joolaa jaamu séeréer. déedéet loolu moom ñemewu ma ko wax. waaye daal dama la. joolaa du jaamu séeréer. déet ñemewu ma wax loolu ndax man. man man bu rax alpulaar. waaw lépp daal jaamu séeréer la moom. déet man. asom daal suñu jaam. waaw loolu daal xam naa ko ci dama ne dama ne la ASOM la budget nationale yàlla na ko yàlla bàyyi ñun bàyyi ko le président Macky ndax mu ngi koy dimbali mu ngi koy jàppale ci Sénégal ci xale yi macha allah jërëjëf. dama dem na léegi. pare naa bu doon léegi nii pare naa instant bu bëri rek laa gis dama pare fépp war nga alxuraan incha allah rabi combat sama bakkan laa teg. comment sama avenir bépp laa ci def dama bëgg mu xam loolu mu dugg ci boppam waaw maa ngi nuyu waatu waatul gépp nag di nuyu waa Colobane bi ma jógee di nuyu ñëpp dama bëre fépp barke alxuraanu karim incha allahu rabi Elton maa lay siyaar lépp jàmm tawfeex di la wax ñàkk na waaj barki Serigne Touba waa Guédiawaye dañ maa yónni yaa xam ci ma billahi wallahi taala bu taxawee dama koy dóor mu daan barki Seydina Mohamed si sa téléphone daf maa yónni yaa xam ci ma ak may sa sant yàlla bu dégg maa ngi sant ñëpp di sant ñeex maa sa joor aw ma fayam day damay jàppale di sant waa Maris ñëpp aw ma seen fay billahi sëñ bi maa ngi lay ziar. waaw delloo ziar. tur bi Abdoulaye Djigo la PDG PDG Wassare Lalu. waaw yow ci t-shirt bi noonu. waaw te maa le PDG mais le porte parole moo ngi lay ziar bu baax ànd ak borom Wassare Lalu bu Abdoulaye Djigo di jeune producteur jeune promoteur di kuy social kuy jàppale loolu moo koy ci làmb ji benn xale taxawaayal tudd Pikine ndax moom mi ngi leen di jàppale di leen dimbale kon buñ ko tuddee drapeau ñu ànd ak sa Ali Saw Ndiaye muy suñu chargé communication faa sànni ci baat. waaw mais merci beaucoup xanaa ñëw rek ànd ak waa Wassare Général di préparer le grand combat incha allah rabbi mu nekk journée boo xam ne. dañ ko defal jeunesse sénégalaise mais Wassare Général Nour Abdoulaye Djigo PDG bi ko jiite social rek ci lay dox mi ngi tabax ay kër di ko joxe mi ngi jàppale jigéen ñi mi ngi jàppale làmb te yéen nii tamit nag maison de la presse fas yéene nañu koo jàppale incha allah rabbi ci kàttanu yàlla waaw incha allah. ñun nag soxla nañu ay kër. waaw loolu man amaguma kër de. loolee da nga am incha allah rabbi. ma war a jox kër. danaa la jox incha allah rabbi. amaguma kër lu leer laa la wax. juru combat bi juru fan la nekk. fii technopole la nekk. juru combat bi. ah damay jël sa numéro de. ma ne juru combat bi. waaye yow vraiment may jël sa. terrain yi ñuy maye. man damaa damaa bëgg terrain man. damaa bëgg terrain. ci sa man kenn ku ci nekk sa tur ak sa sant xam ci message général Lour sa message muy Macky Sall. Macky Sall rek message nekk lu mu bëgg ci wàllu développement ci message général Lour la nekk foofu rek laa merci beaucoup. Yaag maar tirage au sort tirage au oh, sort. pare bi pare bi mooy jël mooy jël jël ñu xool ñan ñaar ñooy daje quoi. gaaw na gaaw. aywa jëlal Ali Sow Ndiaye. Aliou ay tiré. Ali Sow Ndiaye mooy gën kii mooy kan. Kaaw Kaaw Gourdin. Kaaw Gourdin. ku muy dajeel. jëlal beneen Kaaw Gourdin. eh yàgg ak Albarka Kayre. Albarka Kayre Kaaw Gourdin. loolu leer na am. des na beneen na ñëwaat andi. aywa looy wax. waaw ginnaaw ma sant yàlla julli si yéen a maa sant sama ñaari waajur waaw di woo sama mbokku pël Fuuta yëpp. di woo sama mbokku pël Fuuta yëpp musiba amee fo ala goto mo mi acci ko ɓiɗɗo mo miɗo e cippiro ko cippiro woni ko ɓernde an miɗo torade allah fo toranolan mi heɓan victoire e hoore o tournoi momi jokki bu loolu may woo monsieur le maire sant añ ma koy naan na jàpp si bu baax a baax may woo bari di woo Cheikh di woo grand Joël di woo grand Petit di woo sama waa écrit waa écrit ba bàyyi ma kenn grand Baba mu ngi nar a toog maa koy sant ko gërëm lu métti la may teg tournoi bi day métti rek. waaw wax ci kaw Gourdin. waaw kaw Gourdin man amul lu ma wax ci moom parce que ñëw ragal la. man li mu ngi fee day bëri waaye moom du dërëm bu nekkee fële di bëri loolu taxul xolal ñun ñu bañ a def la ñuy def amul kàggu amul keneen ak ñeneen ku ñëw ma daan la maa ngi nuyu samay mbokk nag waaw mais moom na moom mi ngay biri xilife Conakry ke Kamsar ke fe laagi ne naa biri xilife naa biri xilife ma ko maama yi xam ma lii lug ma faa ma woo samay mbokk lay xool bi daf ma ñor dama ko bëgg sama biir xol maa ngi woo képp koo xam ne am na xam na Albarka Kairé di woo sama papa di woo ñëpp daal bàyyi ma kenn ku lim lim kontaan ci yow maa kum caatu Daouda Fall waaw ah, onze billah bisimilah ina wali yàlla dañuy wax jërëjëf Serigne Touba ginnaaw bi sant yàlla julli seen dëgg ñu ngi ñaari waajur di sant fi ñu jógee muy biscuiterie ñaari télé Grand Dakar di nuyu waa Bawol sur waa dëkk waa Mbombay waa Touba di waa saalum di nuyu waa Gambe waa Gambe maa leen nuyu bu baax a baax waa di wax ne seen mbërë seen xarit seen doom rek nekk. Atou Daouda Fall looy wax ci moom. man amul lu may wax ci tournoi bi laay wax waxuma ci kenn neuf points rek moo ñor waaw. mën nga koo am. force dara bëgg a dem neuf points force dama koy am force force dama koy am mooy lima ma war waaw déggoo dañoo yónni yaa xam te dara du Baye Fall bi la ñu wax tey saa yi dafa ñu teg suñu bët ci làmb waaw moom mooy du tournoi bi moo ñu bàyyi si làmb roi des ñor benn combat ñoru ñor barke alxuraan di woo samay mbokk nag di wax ne seen doom a ma di woo autorité yi ku ci mel ni Mor Mor Ngom di woo Pape Sène di woo sama waa koñ waa Bentali Ndeye Sali Diop Dieng ministre la femme et des di ko woo di woo tur yëpp di nuyu sama maman maman Khady Sarr di nuyu sama supporter yëpp fépp fu ñu a nekk di nuyu waa diaspora bi bu ñu mel ni ñoom chanteur ma fi yaawe maa leen siyaar di la woon maa leen woo ci combat bi nii waa Espagne di woo waa Bentale bi ci téeri Grand Dakar di leen wax ñu jàppale ma ci tournoi bi nii dañ na ngay riiba da ngay raako da ngay bala ngay torojo da ngay morojo cinéma bu përi bokk du ci tournoi bi loo ci. bi dafa tournoi bi am solo la dama ñaan yàlla yàlla defal ko cat yoo xam nga la wax ñi ñii ñooy roi des arènes avenir baa ngi nii avenir lamb baa ngi nii dañ leen foog jàppale leen ñi daal si kaw si kanam ba daan nañ ci looy wax. waaw Babacar tournoi bi dañ siy ñaanal Italie mu am si réussite à 100 pour cent waaw naa après di ngi leen defal mbër yu ñu def tournoi bi plateau spécial parce que tournoi de soc la. te loolu Equivox lay amee. waaw Equivox mën na ne. lay amee. mooy yoon parce que tournoi de soc. fa lay amee daanaan lay daan. maa ngi def plateau bi. waaw koy ñaanal rek. maa koy am naa bentoo rek. Equivox non dañuy kale ku ne xam nga koy dayal ku ne xam nga koy dayal dañuy kale date bi. day ñëw toog waaw pare pare moom faw mu toog. ñëw toog te tournoi bi. wala doo spécial. direct lay doon direct. bi lamb daa am si ñoom yaakaar. ay ndaanan kese ñoo si ne. mooy wane tamit euh, plateau bi. bis bu ñu toogee yu bëri ko toj. te Idaly de lamb nan jàppale Idaly quoi moom ndaw la toj jàmbaar la quoi waaw jaajëf. Idaly kontaan. waaw rek di a yokk ñaari moog Cheikh Ndigal Sène ñooñu dañ may ñaanal ak Baye Jili borom léegi léegi di sant sama ñaari waajur bu baax di nuyu sama xarit bi nga xam ne moom moom sponsoré ndax ñëpp ba ñëpp dawee moom moo fi des kon nag ñi waaw ñi nga wax ne nañu ko ay am na luñ bëgg ñu doomu bawol lan te luñ am bawol moo ñu ko dàqal may sant moo ak staff ñu ngi bi yëpp di am mbégte bu baax sama grand looy tëjee looy tëj maa ngi remercier maa ngi leen di gërëm yéen ñëpp gis naa bi rafet na kontaan naa ci vraiment presse aussi kontaan naa ci dinaa leen amal spécial bi nga xam ne pour pour presse bi dong la incha allahu rabi waaw. mais sama teere bi mbaa yaa ngi koy sóoraale. maa ngi koy sóoraale bu soo saaganee su may ñëw ci làmb ji indiwaale ko waaw <laughs> incha am na solo. ok merci beaucoup.